ngi koy siyaar bu wér a wér di nuyu tamit euh, suñu grand yi ci kër gi ñoom grand Abdou Fall ak grand Gala ak grand Bitey ak euh, grand Mansour ak ñoom grand Moulay ak ñoom grand Talla ak ñoom grand Biram waaw ak euh, PDG Badara waaw Badara Ndaw ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaw grand Badara di nuyu tamit suñu grande sœurs yi ñoom Fatou Kiné voilà suñu grande sœurs yi tamit ñoom Alimata Sadia ak euh, suñu yeneen ñaari grande sœurs yi waaw mooy ñaari ngóone yi nuyu itam yeneen ñaari grande sœurs yi euh, mooy ñaari amina bu xees ak bu ñuul voilà <laughs> voilà ñu ngi leen di siyaar di leen nuyu boo nekkee mag cim kër moom tey nga dee bàyyi léegi ñu féete doon gone par force gone gonelu en ah, soose waaw jëlaat suñuy 18 ans toog ci xam nga di di di di di sol ay costume yu ndaw comme gone waaw bu ko defee di di watu waaw. di dégradé ah? di dégradé. waaw di dégradé comme waa jooju nga xam ne daw na ca Maroc man mu toll ni moom naan day dégradé <laughs> léegi. kooku kumbo. ah xoolal rek en daal seeti ah? man daal dégg dama ne kooku dem Maroc te mu dégradé. <laughs> foofu laa yëg. est-ce que doo leen woon soose ki dem Maroc dégg ki def dégradé bi te ne Maroc. ah leen ko soose. kenn du ma yàqal na. Ah. dëkk a nuyu nañ tamit. Euh, ah kii la. <laughs> Ah. <laughs> leen tooñ bàyyi leen tooñ baax na en tout cas man daal. mën daal euh, nuyu naa ñëpp. nuyu na doomu Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi. ak euh, sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew les sénégalais de la diaspora ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm di leen sant waaw nuyu nag euh, suñu famille yëpp nuyu suñu mbokk internaute waaw ñoom nag moom ci dëgg-dëgg mënuñu dara dara dara dara dara lu dul soose. Hmm. di leen ñaanal yàlla. koo xamante ni nii sëñ bi day fay di la seetaan. Hmm. <laughs> boobay benn ñaar day fay di la seetaan ci léeg-léeg mu dégg ci yow loo xam ne neexu. waaye bu te teewul bu subaa day ñëwaat du noonu. kon nag kooku moom suñu internautes yooyu yaakaar naa ni ñun mënuñ leen a fay waaw nuyu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu kilifa aaday suñu kilifa diine yi waaw xalif yeeg imam yeeg ñëpp le clergé l'église catholique nuyu itam suñu kilifa politique yi. Mm-hmm. commençant par le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye son premier ministre Ousmane Sonko l'ensemble du gouvernement. képp kuy yëngu ci wàllum public bi administration bi foo mënti ne waaw ñu ngi lay nuyu waaye ñu nekk ci secteur privé bi tamit ñu ngi leen di nuyu ñu nekk tamit ci secteur informel bi ñu ngi leen di nuyu nuyu société civile nuyu presse nuyu te opposition bi waaw doomu ndey ñoom jaara waaw kay ñoom tam ñu ngi leen di nuyu ñoom opposition bi ñu ngi leen di nuyu daal waaw. ñoo ngi lay fay. voilà nuyul <laughs> ngi fi ñii dañ leen di ndax piège la. <laughs> loolu tukkil solo. Ah, waaw baax na damay wax ak yow doo ma tontu doo doo ma faale demal opposition boobu mi ngi noonu yaa ngi noonu ñu dañoo sonn éternel opposant bëgg opposé wu ba kañ. di mer rek. way <laughs> profession opposant sama benn xarit na xaaral ma noppi sax parce que réew moomu daana ci ay jafe-jafe fan yi mm-hmm. moo tax. dañ <laughs> daa wàcc ci aéroport ñu jàpp rakku président bi quoi. <laughs> laaj ko carte d'identité <laughs> frère du président de la république waaye <laughs> si profession opposant ay yow demal demal te boo nit booy booy gàngoo da gàngoo lu baax jaara buñ ne nii rek mu ne opposition mu ne ñu ngi leen di fay di jël boppam di ko fa dafa ak yow li nga daj yépp opposition ba demal ñun ñun de ah, waaw ba tey demal jël ñam nañ fa loolu na sëkk ak barke doom loolu na sëkk lu waaye wax gara garaaw dañ leen di nax ñaari banque lañ ko dañ dem dugal sa 15 millions ñàkk ko conférence yi rek boo gisee ni ñu koy organiser saal yi tànk position boobu métti. baax na ci réew nag. Mhm. waaye baax na ci réew kay dëgg la kay. sëñ bi soose xumbal démocratie daal soo <laughs> waaw. <laughs> Euh, heureusement léegi WhatsApp am na. day neexal bi sax gisal opposition bi conférence de presse bi mbir mi jalaañoo mbir mi jalaañoo ci kaw taabal ji. waaw waaw fees dell mi du am ordre nga naan nii xoolal. di fomp ñaq bi jaxasoo sa léppay jaxasoo. xool wuyu ma pomp nooyi ko leen fay sa xel du dal nag sa xel day ñàkk dal ba da ngay jël sa saak boo xamante ni da ko jag leen prison teg ko sa demal ma ni sama wéttal bi tam maa ngi kokk na président Diomaye. ah Diomaye waaw Diomaye waaw Diomaye waaw ñu ngi koy nuyu. xam nga itam suñu bale bi itam ñu tuddee njiitu yow mi tamit lii lan la moo fi indi bale de. kenn moom Socé. waaw doo bàyyi ma nuyu kii. waaw mu nuyu Diomaye. ah waaye yéen ñii ba pare nga nuyu waaye mbooloo aussi. non mbooloo mi koy Socé ko Socé ko moom. Euh, maa ngi nuyu aussi soon excellence. son excellence is is coming. son excellence bale maa ngi lay nuyu. ma ngay waaj de dem mu ngi dem fële. du la yóbbaale. ah non. bu ko defee foofu am naa visa de waaye aw ma paas. ma demee di kuréel Macky mi ngi la fay xaar. ah ca assemblée générale ja. déedéet man daal am naa am naa visa waaye aw ma paas. aw ma paas. Hmm. ah ah euh, nu mu nag suñu président Bassirou Diomaye Faye son excellence. non non non. Ah, na la yóbbaale nag. kan. nga fay ragal nga nga daje fa ak kuréel man c'est ça mon problème. Eh, fu muy dajee kurmani dëkk ba États-Unis ñuy dee ci wutum xaalis bi ñu de foofu xawma lu fa kurmaki di def ku yaakaar ñu gën a liggéey wutum xaalis bi mitti ah, lekk secteur am la kay <laughs> ku dugal sa quinze millions de moom nga am na démocratie xanaa nga taxaw la neex waaw ah, loolu di mën ne moom ñu di ay juuti dafa fàttali ne waa impôt lañ ku dugal ñàkk de <laughs> te li ma neex si biir nag ñu ngi accéléré mbir mais instant bi Ah, waaw kon euh, xanaa di. delluwaat di nuyu ñëpp rek. ñu ne ci réew mi ak ñu ne bitim réew ak ñëpp rek ñu ngi nuyu mbooloo mi. Mm-hmm. Euh, ñi nga xam ne nag dañoo toog jamono yi yor seen kurus di tocc toccal di ñu. ñaanal dañu mayaale nopp <laughs> ngeen ñaanal ñu rek. ñu ngi leen di nuyu yéen it wax dëgg yàlla am na ku ma fi bindal sànq na ma naafiyo euh, moom laa doon wër mexe meen Maxemen waaw. Hmm. dama doon wër tur ba di far mu far mu dem xam nga commentaire yi day. Hmm, day gaaw macha allah ñu ngi nuyu ñëpp daal di ñaanal ñëpp nag bëccëgu jàmm. jaajëf naa ñi ma na nuyu ñëpp honorable nuyu na leen. nuyu bu nuyu jomaay waaw liste boobu may dégg démb ba nëgë ni nu yokkal yokkal yokkal may ma ci. soo seen nuyul ñu dem. man de ci internet bi laa ne fu ma tourné. saf saf la def si internet bi. dégg Ahmed Aïdara. bàyyi kan. yow Samuel ak kan. ma mbaa ca ma dégg mbaa jàmm la. farba ngoom li si boobu farba ngoom. ak non bu ñu xëyee dinañ muslu si yow. waaw ñooñu ñu def jaara jaara de ma bëgg xam nga moom naka jekk ci lii rek lay yëngu bëgg chaque jour dama booleeg réew mi te du ma ko nangu man dama doon ñëw donc man de soo sa dama xëy xoolal ku nekk di ma yónnee eh, eh, TikTok bi damaa mujj tiit ma ne kii est-ce que man la est-ce que falsifié wuñ sama baat <laughs> jaara kooku man la. maa doomoo jaara bul tukki bul tukki soose bul tukki yow de yooyu ngay def ak yeneen lu ñu la waxal yaa ko def soose doo nuyu mbooloo waaw mbooloo mi nuyu naa leen ah, ah, mhm, nuyu naa leen léegi nuyu leen di nuyu kontaan nañ ci lool ci ñoom lool nag wax dëgg yàlla mbooloo mi moom amuñ seen fay mhm. ndeysaan waaw ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax a baax waaw jaajëf am na solo ani ah, ñaañu célibataire yu mag yi ñoom waaw euh, kenn ki de daan ci yitte keneen ki daa tawat. lu jigéen li. moo ne ci projet. lu jigéen li daa tawat. Hmm. waaw lu góor li nag daan ci projet. tey yàlla. waaw xam naa ne suba incha nag lu jigéen li xam naa boo demee rëng gàmmu gee ko jàpp. Hmm. ndax nii la fi defoon tam ba mu jugee ca màggal ga. Hmm? nga ñoom moom léeg-léeg seen i wet lu ko dajji day yomb. dëgg la de te yoonu yoonu Kaolack bi dafa xaw a métti. waaw ñoom mas ñu ngi lay euh, masawu am yi wëral ak jàmm nga ñëwaat ci mhm. euh, plateau Sougou nam naa la sama partenaire yow boo fi nekkul damay weddeel ñëw bàyyi ngay def su ko defee ñu nuyu wentox na ci nga xamante ni ñoom it saa su nekk dañuy ànd ak ñun ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi waroon naa ñëw non dafa nekk si kii nag suñ préfet boobu defoon xëy na dana ñëw def revue des titres suñu préfet bi passation de service tey lay wër service su état bi te hmm. ca ville de Guédiawaye lay njëkkee Euh, bu ko defee nag jaara euh, moom xam naa li may bëgg a wax du ko neex waaye. Mhm. yeggali. yaa ko war a dalal waaw c'est normal. yeggali. voilà yow muñal rek. c'est normal yii ñuy dund yëpp léegi mu jeex. damay ñëw toog suba bu guddi. xaw ma ni mu may defalee di ma ko defalee waaye yàlla baax na astu topp euh, mama su topp baabu maa ngi lay nuyu bu baax a baax euh, Ibou Camara Cheikh Tidiane Wade nuyu nañ la Mor Anne astu ndaw Juma baax ñu ngi leen di nuyu di nuyu mama Ndeye Awa Ndiaye mama Ngenaar mama Nabou Dieng mama Madeleine Diallo ñu ngi leen nuyu bu baax a baax mama nge euh, Sira Tamba ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Cheikh Diop Fatou Tounkara Notou Serre ñu ngi lay nuyu di nuyu Moussa Bouri Ndaw imam Papa Diop Traoré nuyu nañ la Cheikh Sadbou Mboup Diop ñu ngi koy nuyu di nuyu Talla Cissé Ousseynou Ndiaye Mamadou euh, euh, Mamadou ñu ngi koy nuyu di nuyu imam euh, Pape Diop ñu ngi leen di bu baax a baax Baba Kandé Mariama Seck Youssouf Nia di nuyu Waly Senghor Fenda Diouf ñu ngi lay nuyu di nuyu Bassirou Ba Tigres ñu lay nuyu di nuyu voilà Amina bu 2 Assane bu 2A bu jaara ñu ngi lay nuyu